bokk yi ñu siwrit ci Leewtoo rek 100 pour cent lamb gis ngeen booy fay ci café gi ah café gi naan nañ café gi ñëw nag toog waxtaan li waral waxtaan bi nag lenn la mbër la nekk espoir u lamb mais li simple tamit yaakaar naa ñu mu bokk ci tey ñi nit téye nañ ko ñu gis ko daaw ay lambam bëree na mais xëy na kii kiiwul woon noonu mu jógee fi tamit voyagé woon xamuñu nag ban dëkk la demoon ñi ne nañ Maroc ñi ne Tunisie ñi ne Algérie ñi ne États-Unis ñu bisi na bi mu gis tamit bi ñu ci gën a jàpp mooy final bi mu finalu bërki démb ak franc bokk tax tey ñu seet si ko champion maa ngi lay nuyu di la ziar di nuyu sa gars yi tamit ah Ibrahima Niane looro looro bi maa ngi koy nuyu di nuyu waa looro rawatina ko mel ni Lamine Seck li TV ak ki toog nii Alaaji Sall bës maa ngi koy bëggee moom tamit maa ngi lay bëggee waat mbër. la màggal di nuyu àdduna waaw di nuyu Sénégal gépp di santaat yàlla di wax suma papa fa mu tëdd yal na suuf sedd ci kaw di yërëm suma yaay di yërëm suma yaay waaw naan ko yaay booy dundal daal ba say may di baax ndax moom mooy suma kàttan daal waaw di nuyu ñëpp nag di la nuyu yow mii nii Lamine bu baax a baax a baax a baax. Boy Faye ci làmb su mu ñëwee ci booy fay booy fay fu mu juddoo booy Faye fan la dëkk carrément booy fay séeréer la wolof la jaago wala joola wala lan. waaw Boy Faye dafa métissé juddoo Fatick yaroo ginnaaw raay defee fa sama jeunesse yëpp Pikine ginnaaw raay booy fay mën nañ ne dafa métissé am na séeréer am na tukulóor saalum saalum bi nag moo ci ëpp waaw ndaxte suma yaay moom mi ngi dëkk Kër Mbangu Jaawo di leen nuyu Kër Mbangu Jaawo mi ngi nekk saalum côté Passy fa la nekkee suma papa mi ngi cosaanoo euh, Touba Mouride mu ngi fa cosaanoo waaw ba nekk ay tukulóor nekk ay tooro de pire tamit waaw moom mhm. léegi suñ ñëwee ci làmb booy fay lan moo ko dugal ci làmb dafa amoon ko muy roy ba tax mu dugg ci làmb wala dafa xëy rek ñu ne ko mën ngaa bëri mu dem dugg ci làmb. waaw booy Faye dafa yore woon ci gox boo xam ne goxu làmbu la muy ginnaaw raay ma daan topp bàcc seeraas nekk xale di topp riir mi doon dem daral chaque jour nekk ci sareet yi di ànd ak moom sama yaay yenn saa yi mu ñëw jàpp moo dóor yóbbu kër ga. ma topp ko mu daan téye sama loxo moom ma tarbiye si lépp moom magam Aliou Ba waaw maa ngi leen nuyu bu baax a baax a baax a baax di suma grand bu baax nag yàgg maa jàppale ci bépp côté kooku moo tax nag ma bëggu làmb ndax mus naa ko topp ba ñu mus ma ramas ci benn làmbam yóbbu ma central waaw boobu yaakaaruma sax ni dinaa doon mbërum làmb jamono boobu ñu ngi taxawoon comme supporter daal boobu noonu comme supporter lañu woon ci moom dëgg moo tax daal moom moo ñu dugal ci làmb moom daal mën nañ ne moom moo gën a tax ñu ñemee bëre daal mhm, moom bàcc kon bàcc moom la jàngal bëre su ma la dégg waaw moo ma jàngal bëre mën naa ne sax liñ naan booy fay day mayeeg bëre bi muy bëri nii bëre foole lépp loolu lépp moo ko def si man waaw parce que bu ma daan jàngal bëre mën na ne ñaari loxo la ma daan jàngalee bëre dana daan bàyyi ba nga xamante ne ba nga jàpp ci ndigg ba mu jeex mu ne la bëreel ba mu nga soog a bëre mën naa ne noonu laa jàngee bëre parce toujours damay dégg ñu ne dangay ngay foo mais Messi ni muy fubalee Neymar ni muy fubalee Cristiano ni muy fubalee làmb ku ci nekk ak sa sula ku ci nekk ak ni ngay bëree. ci sama xale bi Rodrigo ba ca Real ni muy fubalee. waaw ak moom it muy fubalee ku ci nekk ak say say mbir daal. Sadio Mané mii ci man ci Afrique. du moom mooman yëpp <laughs> mooman yëpp léegi moom mooy waral ñuy wax ne day foo mais ku ci nekk ak sa bind la ku ci nekk ak ni ngay bëree moom laay def di am moom laay def di ñàkk amaana. du ma bàyyi suma wajuroo kër ga bàyyi suma lépp ndax làmb ndax man pièces détachées laay jaay suma mag bii ma nekkal mooy saate conteneur di ko indi ñu nekk poste di jaay pièces bi may xale ba tey ci jaay pièces laa nekk ba nu ma magee waaw pièces oto yi ci la ma wax ne ma toogal kër ga lépp lu war ci man ñu koy def ci man temps en temps laay dem poste su kon conteneur wàccee laay dem ci conteneur bi su ma paree damay dem nekkaat suma ay entraînement waaw moo tax euh, lépp moom la daal mënu koo fay waaw ndax taxaw na ma ci tous les plans mook suma taawaay bi Aliou Aliou Sakho waaw ak soxnaam Ndaya Sow ñooñu sonn nañ ci man bu baax a baax a baax a baax a baax. bàcc yéen a ngi déggante ba tey. bàcc waaw ñu ngi déggante bàcc dañuy déggante daf may conseiller bu baax a baax may conseiller di garant bu baax lépp lu ma mun di def ci làmb bu nit ñi di coow naan lam def ak erreur ba mu def ak yëpp moom da cay bëgg ndax moom xam na li may def ko. xam na li ngay def waaw moom xam na li may def lan la. <laughs> léegi nga nekkoon écrim est-ce que ba tey yaa ngi ci écurie boobu wala. maa ngi fa ba tey maa ngi écurie Bathieras ba tey waaw Aliou ba moo ma jox suñu bordereau ma dem renouveler sama licence di bëre nekk ci maa ngi Bathieras ba tey. di dégg ñuy wax dóor dóoraat ci suuf naan booy fay léegi presque dem dóor dóoraat ak yu mel waaw doomu aadama li ñu naan dëkkandoo mbokk la te bon bi ñu nekkee ginnaaraa jóge fa suma yaay ñëw fii unité 4 man dama naa nekk fii suma mag bi nekk mais kër ga laay yendu unité 4 fii laay fa. falaa doom yendu nekk ak suma waajur wi ñu nekk fa ndax day bëgg di ma gis toujours waaw léegi nag moom mooy tax euh, Garga nekk koo xamante ni même bi ma voyagé sama ginnaaw sax day seeti suma yaay loo xamante ni nit nekk na parcelle kenn jiwu ma loolu di ma conseil ci lu baax lu baax lu mu am ne ma kaay teel lii jàppal lii defal nii defal nii defal nii di ma indiqué ci lu bëree bëree bëree bëri ma jàppee ko mag nag suma grand frère la boo xamante daf may conseil bu baax a baax a baax waaw moom moo tax bu amee journée wala mu nit ku ci nekk mu na yem nga ko yem nag wax dëgg fa yàlla am na loo xamante ne boo dee gor piir bu la ko nit jiyee ñu ma woo ji leneen lu dul teraanga rek waaw loolu rek. sa diggante ak mbëri Pikine yi Boy Niang ak Ama Baldé. waaw ak Eumeu Sène seen mag. waaw na ma meloon ak ñoom laa mel ak ñoom ba tey su ma ay garant lañ su ma ay kilifa lañu su ma ay garant lañ su ma ay kilifa lañu fu ma tasee ak ñoom jàmm laa ak ñoom mën na ne sax booy fay mbër la seqal jàmm jàmm laa seq ak ñoom mais nag damay dox am sta am lépp man su ma làmb fi mu ne nii ñu ngi naan ay dina bëre kii du bëre kii man awma pour wax ku may bëre ku ma dul bëreel gis nga Ibrahima mee toog buñ ko seetsee kuñ ko wax ne ko mu diw lañ bëgg boo ko joxee xaalis bi ma sëgg ci làmb ji sama mag gi ma bokkal benn kër laa la wax ku am da indi moom bu indee jox bàyyi ma indi jox yaay xaalis ñëpp moom la ñuy wut moom mu jëlee ak yaay indi ma Dakar yàlla na ko ñëpp am amiin dañoo ñëw pour bëri si te lew doomu nag day lew sax ndax moo tax alal yooyu daj coono dana lew torop torop torop loo xam da nga ciy dalante dalante bu métti kooku dalay jëriñ kooku dalay jëriñ bu baax waaw mais mais ku mel ni Ama yaakaar naa amul ngeen ay relation ba ma nga fa ba tey ñoom ñëpp ku ci tasel jàmm laay séq ak yow bu baax a baax a baax da ngi contact ba tey non non da di booy fay parcelle la féete lu ëpp ndax li li tax mu féetee parce lu ëpp mooy suma lépp presque léegi daf fi nekk quoi waaw parce que dama dama déjét lu bëri léegi daal di toog suma wetu yaay parce que li ñu naan daal bu ñëwee garab gu war a doon pénc law bi du ko gis ba di ko gor garab gi day nekk fi ñu koy aaree ba duñ ko gor maa ngi suma wetu yaay. mais Ama moom damay dig si moom benn combat bi passé mook Papa Sow combat da nga ci doon liggéey moom. waa liggéey nañ ci combat boobu liggéey nañ ci ci jamono boobu noonu. te boobu mooy li ñuy wax rek yaroo Pikine defee fa lépp comme ni ko mbaru Pikine di dundee ñu dundee ko noonu rek jàppale ko ci làmb ji après teewul dañoon ñibbi si suñu kër parcelle waaw mais bi mu paasee après tamit ñu toog suñu kër rek gérer lu ñu gérer teewul ñu ngi seqi jàmm ñu ngi dund ci jàmm ji ñuy seq ci jàmm ba tey même bi làmb ñu ngi dund si jàmm ba tey bu ñu woon fii maa ngoom dañuy nuyoon te daw songante combat bi mu jublu fas nga yéene jàppale ko ci moog Modou Lo nag dafa am benn affaire bu am Boy Faye dafa am beneen Boy bu am mooy fasuma yéene jàppaleeti benn mbër damaa ñëw pour sama bopp laa xam xamatuma kenn su weesoo Garga Mbossé bi nga xam ne bi nga xam ne même bu ma tukkee mu xool ndax sama yaay mi ngi tane wala dara dal naka su weesoo Garga Mbossé amatuma pour xool benn mbër wala ma ci jàppale kenn baa may dimbali kenn sama bopp ma ñor xam nga lu may déglu booy fay jógal entraîné yi am nga combat diw nga war a bëreel ma jaar fi ma war a jaar ànd ak waa Fatick yi waa Mbelgoor waa Daaru Kër Momor Xoreja waa Passy ak waa Marloj waa Fatick yi ñoom ñëpp ànd ak ñoom waa Jila xaar takk sër bi dem bëri ji ci fulla amu pour def leneen dama am staff boo xam ne staff bu bees la dañu réunion man ak ñoom ñu am ci ay conditions ñu ma teg am kàddu ñu ma teg booy fay moon ak mii bokkul dañ may wax loo di ma jëfloo di ma defloo damay entraîner damay tëju xale laa damaa nekk ci yoon ba pare war a def carrière comme ñëpp teraanga yi ñëpp am ma war ko am nekkuma fi pour kenn hmm. dama pare pour liggéey. mais da nga pare pour liggéey loolu je suis d'accord mais problème bi mooy yaakaar naa mbër itam buy liggéey fa mu am sparring partenaire bu koy jàppale ci contact yeeg na moom ama boo ko jàppalee jàppale nga sa bopp parce que da ngay ut muy ut ngeen daje mayante doole mu jëm ci combat royal nga nga ne yaa ngi écrit bàcc séras ba booy fay jamono bi ñu toll li koy jàppale su guddi gi su su su timis gi maasee la. loolu wax ju ñu côté la cote la am kooku du ma ci leeral. ko da ko dañu xam. Hmm. bu ma dalanteeg mbëri chaque jour boo amee gis-gis di nga xam ne maa ngi dalanteeg ay ponkal daal walla a yem. kon ngi contact ponk ak i mi ngi dalanteeg ponkal daal. boo xoolee garga de ponkal. boo xoolee ni muy bëree di nga xam ne mi ngi dalanteeg ponkal te ñu ngi koy yokk xam-xam ñu ngi koy wax na ko nii nga war a def nii nga war a def. Hmm. léegi su ma la laajee ah tey yaa ngi parcelle waa su waa parcelle xëyee ñoom ñëpp ne dañuy jàppale Modou Lo ci combat ak Ama ñoom gargaak ñëpp décidé ko yow di nga dem. du ci dugg Babacar nee naa la benn mbër ma mën a yëngal ci kër gi ma toog garga mboose te li ma woon képp la dafa am lu ma woon loo xamante ne gor su ne gor nga moo tax may dundak moom loolu mais su woosoo loolu dunduma ko ak n'importe mbër mu mu mën a doon sequma ko ak yow. léegi leer laay wax nii. léegi damay ñëw parce que fan yi am na sax ay wax yu ñu jot a dégg. parce que mooy loolu ku mel ni l'an 2000 seen relation nu mu demee. waaw l'an 2000 du ma ci wax parce que suma garant bu baax la borom baax la jàmm laa koy ñaanal di yàlla carrière bi muy def ci bi mu def ci làmb ma def bu mel noonu parce que jàmbaar la champion la sama garant la wax dëgg man du ma topp di wax ci yooyu wax dëgg fa yàlla jàmm laa koy ñaanal daal yal na ko yàlla defal jàmm moom ak soxnaam Ndey Kumba ak njabootam gépp maa ngi leen ñaanal jàmm bu baax a baax. maa ngi koy ñaanal jàmm day wax di ree de lu looy ree mel ni kuy xaw a mbal ak yow maa ngi koy ñaanal jàmm bu baaxa baax rek ndaxte yàlla moom moom jàmm ñi daal am na yàlla def jàmm da ma sa bëri yéen ña waaw bëri nañu nag euh, gànjaay ma am ci moom ndam ak euh, Dakar mais mooy li ma wax keroog bi ma daanee waa ji ne ma daan nga ma ne ko da mënuma kenn lu yàlla di dogal ci man la may bëri di am ndam ci kaw nit ñi noonu laay bëree nit am ci man ndam ndax kii uti mooy ñàkk chaque jour ndam décision sunu borom la. mais la euh, kooku xam ne doom yow ginnaaw raay doomu ginnaaw moom mu dëgg ginnaaw raay est-ce que war ngeen daje ci mbapat di bëre ak yooyu wala bu amee da di bëre da ngeen di bëre bëre dëgg wala da ngeen di bëre pour nax nit ñi nii wala. non loolu du ma ci wax man du ma mayanteeg n'importe quel mbër sama licence bu ko téye kenn yoralu ma sama kër damay jëflante ñëw sama gàlle. doo may benn mbër yow. non non non damaa bëre si dañoo teg xaalis bi du ma nax public bi damay bëgg loolu public bi xam ko booy fay bokkul ci mayante mayantewu ma ak benn mbër. dañuy ba ci la. laa ilaaha illallah sëñ bi dañoo bëri si damaa tollu ci liggéey damay liggéey ku am yóbbu sa kër bàyyi. mayantewu ma ak kenn. mbër mës na laa ñaan ci làmb. no yooyu duma ci wax. mais man du ma ak mbër. ndax mbër mës na laa ñaan. no duma ci wax duma ma ci wax Babacar loolu loolu duma ci wax. yaa war a wax nag. Babacar maa la ko non du ma ci wax duma ci wax. non ñi seetaan a bëgg a xam. wax dëgg duma ci wax. walit simple bi. moo tax duma ci wax loolu kot la. rawatina fans club Babacar wax fu ngeen ne yéen fans club Babacar bi fu lit bi ne ñu nga fa ñoom Jiga ak ñoom Pape Ndiaye ak ñoom Cédric ak gaayu kenn du yow ndaanaan nga déggoo ma ne la sawaay. ndaanaan bu ndaw a ndaw man ndaanaan buy jéem. wax jooju kot la du ma ci wax yooyu yëpp ni ma leen daa am kot lépp daa am kot kooku duma ci wax. mais say fan nañ da ngay bëri bëri bu yomb nee nga bàcc la ko jàngale bëri mais damay ñëw kere final bi nga mujj a def yaag Franc lu tax nga ñàkk combat bi. combat bi lu tax ñu ñàkk ko combat bi bu avertissement bi amoon sax day neex waaw mais bi mu amee rek après xam nga boo gisee sax gaa yi xam nañ ne après bëri bi dootul kii carrément parce que. yaa ko téye wala moo ko téye. non lamb ji ñun luñ ci war def nañ ko. yaag Franc yëpp waaw booy xool maag Franc def nañ li war lépp Franc dem na ba jàpp ci loo xamante ne ci man. su ma ko jàppoon ci moom musiba am. ndax day indi musiba day tëdd. tëddal franc yomb na. laa ilaaha illallah. gëj naa tëdd de. yal yàlla def jàmm booy fay ngi fi di entraîné gaa ngi fi di entraîné maa man ak manuma. làmb ji tëjut tëjagut. millions yi de bari na ci simple bi. moo tax nag fi mu ne nii dalante daa jot. ku ci nekk nammal say paaka rek dañuy dalante de. gars yi mii nga yow Franc. war naa ci borom daaru salaam booy fay daa pare pour jëflante dañuy jëflante daa am ay nufu yubbi ay sëriñ ay dë bu yooyu may gis. loolu mooy li ma saf nag. caaka fay defarwaat na. xanaa xamoo Cheikh Tidiane ñaa booy fay dafa bëgg ku dijji man damaa mën damaa aji ku dijji ponkal damaa man ponkal. wala mais Franc lan moo ko comme moom jàpp na ci yow foo xam ne ni yow waroon bu boo ko fa jàppoon mu tëdd lan moo la xañ yow nga mën a jàpp ci moom foo ba tëddal ko. amul foo mën a téye ci moom. xanaa yorul ngemb nga yor ngemb. jàppee ci moom da laa fermeel fépp. Franc moo caabi joo ko tijjee yow. la moom day bëri bopp ndaanaan la daa tëj fépp parce que booy fay boo bu amee ci yow bën bën bu ma ko jàppee ci yow dinaa jaar sa yaram mi fu lay yëm hmm. waaw loolu la rek xam nga làmb ji ni ngay yee di daan moom day ñëw indi damyee moom moomit ni mu ci génnee loolu moo ne ci làmb ji mais nag lenn moo ci nekk booy fay du fi xale kenn ngan dal ba toll ne àdduna boo ñëwee boo ma jàppee su ma fuddoo nga bàyyi ma damay sport comme yow force. lu xew. loolu force la dañuy bëri man ak ñoom. gars yi dañuy jëflante même bu nekkul loolu ba nekkul loolu ba nekkul loolu gars yi dañ maa war a jël ñu bëre arène gis nga moytu bi lañ war a bàyyi. arène ñoo fa ñoo fa bëgg a bëre. maa ngi ñoo ngi jël mbër ñoo ngi jël gars yi xam nga jël nañ ko fi bëre na jël nañ fi Franc jël fi keneen keneen booy fay avance am day wër wër bu salte kan ci ñan la dem ci la dem fa mu dem a bari kon fan ak fan dalul sax wuyu booy fay du la sax wuyu ci yan kër la dug ñu génn ko est-ce que nag gars ragal nañ la yow itam ah, barki dem moo Njaay joxuñ ko fi xaw ma njaga doole sa njaga doole ko ñun bu metti la fi mu jëbëree daan daaw daan jël bu rëy sax waaw ah, mais man damaa xotteeku taret nañ rek njaga te gis naa ko ci tournoi yi dama koy ñàkkan waaye yow njaga di ñëw di daanu ay deuxième tour man njaga maa moom dañoo bokk catégorie ci làmb traditionnel njaga ba muy ñëw boobu dem naa di génn naa dem naa maro hmm. man leen moo ci. waaw bu dul Ndiaga Dolé keneen koo bëggal ko. ji lu métti laa bëgg. Gris 2 na ñëw ñu bëre. a ah, ah, ah Gris man. lu xotteeku laay bëri. moo fi ñëw di bëri benn mbër bëre moo fekk benn paan. yow mën ngaa daan Gris 2 yow. bëre moo fekk benn mos xam la est actuellement booy fay ñam xam la Gris 2 na ma jël ñu bëre. yaa wax lii su ma jëlee ñu bëre gis lu doy waar na ñëw ñu bëre. de gaynde mer la fanaanu daa jóge ci defet de wallaay Babacar booy fay bu dajeeg yow nga ñeme ko ci mbedd buñ tëjee barrière bi nga teggi sa tànk ci yow waaw loolu bëri la rek ak mbërum làmb la rek mbërum làmb la rek ci biti nii innocent la waaye ci biir làmb ji mbërum làmb la waa Fass ngay waxal de waaw moo tax mu neex ma mu dama bëgg bës bu mag xam ma Fass dañoo mën bés waaw bëgg jël ma ñu jëflante ma ak moom dalante waaw boobaa bëre feeñ jëri laa bëgg wala euh, wala ñu jox ma Elton dugg fi muy laal mbaa boo ko laaxee boo bëggee tibb du damm ay etura ki giri de nga may wax de yi fi ñu tukkee fi ñu jaar ak lan jël lépp booy fay defu ko booy fay day dem entraîné lu tuuti ñëw ñibbi toog ni jàpp ñaamuroon te leen ni ñoom fi ñu jaar li ñu daj lépp at fi ñuy dugg di li ñu su ma fa duggee su ma ñëwee ñoom du ñu feeñ Serigne Ndiaye de la wax ci moom daan na bërki dem li bi door ci moom lay des booy fayee ngi fi pour ñëpp ay waaye damaa ñëw pour liggéey nañ ma jël ñu bëre. Cobra nag ñeme nga ko. man maa déggoo li ma lay wax. Cobra 2 bu Pikine. staff ku ñu seet. dafay bëri wax Pikine sax. staff bi bu ñu leen seet seet kan pour bëre kan. waa Pikine ñoom. en bëre fi ne Boy Faye daf fi nekk ak staff am man sama staff fi ne moom. yow xam nga fi ne yow yaay wax da ngay bëre ak waa Pikine wala déet. wax ji dafa am code Boy Faye nga lekk. loolu mënoo am lu leer nañ duma la ci wax dara en tout cas ngi nii daal pour pour làmb ko yëkkati. yéen waa Pikine bu ngeen ne <laughs> boo fi nekk bëree ma indi daal bëree moom ma indi laa wax damaa ñëw pour bëree sama retour damaa demoon am lu ma wuti woon ñëw bëri moo ma indi ku nu seet si Ibrahima Niang boo waxee ak moom ba pare ma bëri ak yow. waaw. mais ki wàllu si Pikine sax ak ki dëkk Pikine bokkul. waaw ñun ay wàllu yaan lañ dañoo làqu si rek. ñooñu amuñu seetaani émission. làq yi xam nañ yi dëkk xam nañ moo tax ma ne la boo ñëwee wéeru si ngir ut looy daw. Eh, est-ce que yow mii li nga fi waxee Pikine nga dëkk yow it. boo ko ñoo ñuy làqatu yow mbaa di. Pikine dama ko 72 bu Falaye Baldé man rek maa koy Pikine 72 man rek maa koy Pikine ci la ñuy xamee champion yi ñëpp fa mbëkkante woon kooku de bu dee Pikine nga dëkk moom nga. ngay bëre waa Pikine. non non non non non dama fi nekk rek déggoo ma la booy fayeng bi daal ak ay staffam ku ñëw wax combat bu jaadu ma bëre ko loolu laa wax làmb ju jaadu laay bëre làmb ju jaadu rek ma bëre ko. Maroc neex na. waaw Maroc nag demoon nañ fa nekk faak suñu ay grand. di et puis lu tax nga taamu Maroc nit ñi ñi gars yi mbër yu États-Unis ak foo ay Espagne ak ay France ak la ñëw nga xëy xëy rek dugg ma Maroc kon am na lu États-Unis amul ma ne ko ak a wér mm. waaw mu ko wér na. final bi sax maa ngi naan Maroc ak États-Unis finalu tey. Faran États-Unis la jóge yow nga jógee woon Maroc. wér na xam nga lu tax maa ngi nuyu grand yi wéeru foofu euh, di nuyu au passage euh, Litaire ak soxnaam Dieyna ba maa ngi leen di nuyu ak ñoom moo ak euh, Pape Demba ak Mansour waa ma fi yaar bi gars yi maa ngi di nuyu waaw ñun dañu dem Maroc toog yóbbu ñu saal bu baax. du lekk ba suur naan mu di entraîné lu métti ba pare dencoog moom nag man nag ñu fa doon liggéey loo xam ne nii sax waxuñ ko kenn danoo noppi rek. ana Fallou waaw kooku mooy borom Casa Blanca kooku du wax ci ay wax ba sax wala moo tax kooku top secret la. Fallou top secret la ku day waar rek noonu. lu bari da koo def ci man man aw ma fayam moom lu bari da koy jaam ci moom moom vraiment mënu ma koo fay sëñ Fallou maa ngi lay nuyu doom day naan la yow gaawal def li ngay def ñibbi si Sénégal fi yëngu waaw gaawal ñëw rek. fii toj. Boy am na soxna. ah booy Boy Faye amagul soxna mais ñi ngi ci yoon wi daal. am nga gel kon. non ñi ngi ci yoon wi rek. waaye dégg naan ma waaw wala di yow it nag bu dee am nga koy nobanteel. non nobante aayul. non man aw ma. nga war ngaa mën gis koo bëgg nag booy. aw ma gel soxna laay am. bala nga am soxna moom dinañ ne xa booy bee la Boy Faye bëgg wala kaay ñu ñaani kii gel am na gel am na luñ ko lu lu xam nga booy fay yaa ma gën a xam yow am naa ku may bëgg xëy rek tàbbee tàbbi ne kaay leen may ma kii lool man tan may bëgg daal di si du yàgg dara naa la woon la booy fay jox nañ ko soxna waaw waaw mi ngi labat waaw. <laughs> ah, ah maa ree war def gi ci ah lan lay wax ah ree bi ci biir waaw kooku madama ko ci def waaw moo ko ci def. sorti yi ñu def yëpp mi ngi ci ah moo ko ci def waaw moo ci def lii nii lépp moo ko ci def waaw. moo la lett nii. lii sorties yi ma def yëpp di def espoir yëpp moo ko ci def ah. madame waay. <laughs> waaw maa ngi koy nuyu. mu ngi Sénégal wala mu ngi fan wala mu yaa ngi bàyyi Maroc wala. non moom mi ngi fi moom moom sportif la ko man ah, mi ngi fii de. te mi ngi équipe nationale. di football. doo di def def rugby. rugby man ngay. ndaanaan la daal. dana neex. sport ak sport plus. moo may entraîné. ba pare nekk sa waaw wax na entraînement bi day jaar yoon rek waaw noonu la. saa si waaw lépp a ca biir. waaw gar kenn du yow. <laughs> loolu neex na de. entraîné ba pare maase la. kenn du yow. dañ lay ginaar boole. lépp a a. mu gën a neex. waaw moom moom moom. moom moom dama koy nuyu bu baax a baax ak waajuram mu jigéen sama yaay ñu laan Diouf dama koy nuyu. nu mu commencé A B wala S wala T wala D. <laughs> comme madam madam Bousso defe naa. waaw madame Bousso waaw. <laughs> day dem madame Bousso waaw. madame Bousso ñu anticiper xam naa day mat incha waaw madame Bousso noonu lay demee waaw. incha allahu rabbi parce que papaam ak suma yaay bokk ndey ak baay. këram bu génnut gàll. waaw maam sama nijaay maa ngi koy nuyu moom Diop Cissé nuyu bu baax a baax. waaw suma yaay loolu la mos a bëgg ci àddunaam loolu nag mooy am incha allah. bés bi kañ la incha fekkee te tal. waaw ñaanal ma rek léegi moo wala ne la bés bi xaar di nga ñëw. janvier bi mu waru cee génn comme weeru. déedéet du ma du ma sama caméraman bi. ah. bi de léegi rek kay dama bëgg yow léegi kay allah rabi mu mat su ko defee gis sama waa jëloon ne moo ko war a boot. garab bi Ibrahima moo war a war indi ko ak gars yi Sall ngaari mënu ma leen fay nag staffu booy fay Babacar ba saaxo alaaji Sall mii mooy wër rek yor saak bi wër estade bi kee mooy sunu mag moo nekk ci bopp bi birigal gars nga xam ne mooy staffu booy fay bi Omar Sarr mënu ma fay seex Thiam sama gars yi nekk si ginnaawam ñoom vie ndaw mafia asalem bi waa Grand Yoff ah waa Bargny unité 1 ba 26 bi waa ginnaaw raay nga xamante ne poste caaro yi jàpp zone boobu yëpp yëpp yëpp yëpp Pikine yëpp maa ngi leen di nuyu leen wax naa leen booy Faye mi ngi nii seen doom di leen sant di leen gërëm naa leen dolli leen ma ñaan bu baax a baax a baax a baax a di wax yàlla na jàmm yàgg senegal euh, di wax jërëjëfe sëriñ Touba jërëjëfe sëriñ Touba jërëjëf sëriñ Touba di sëñ son suñu Serigne Sëñ Moussa a Cheikh Ahmadou Karam Mbacké Noreyni waaw di ahlu Mbacké yu gépp ak paaleen gépp ñu nuyu ñëpp surtout sunu mbokk sikorien yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax a baax affaire bi noonu la fa demee di wax naan nañu dolli ñaan di wax waa sanc Aliou Ndiaye waa kër Mbangu Diawo Ndiobène Talen Passy daaru kër Momar Xoreja di wax waa Kaymoor nañ jàpp bu baax a baax Muntala suma papa di wax naan ah, waa waa ah, kii nu mu sax ah, kër ma jibel waa njaago ji xaar Saas maa ngi lay nuyu yow comprendre nga waa Mbel Goor Abu Kama maa ngi lay nuyu nuyu waa Kaolack waaw am na koo xamante ne moom mi ngi tëngéej du ma wax turam waaw gaa yëpp maa ngi leen nuyu naa leen kontaan naa ci yéen waaw ñoom ñëpp maa ngi leen woo naa leen fi ngeen jàpp dëgër na na gën a dëgër instant bii nii nañ sàppali affaire yi gën a neex noonu lay deme waaw Abdoulahat Ndiaye. laata yor sa licence. moo yor suma licence mooy président Ikiri ba di ko sant di ko gërëm di ko nuyu bu baax a baax ñoom ñëpp ñu ngi suñu ginnaaw ak Ikiri ba yëpp ñoom mbaalaat sama gars yi ne ci ginnaaw Sam Ndiaye gars yi ne ca Demix gars yëpp mooy loolu maa ngi leen nuyu ñoom ñëpp waaw di nuyu gars yëpp di la nuyu yow bu baax parce que Babacar yow da ngay dundal làmb yaa sa équipe bii Ndey Kumba yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu suma gars yi parce que tamit lii mooy àdduna àdduna amul solo. ñu yëngu ci benn affaire ñu ñu nekk ay ndaw bokk ak yéen milieu bi lii dafa rafet jàmm lañ leen ñaanal gudd fan ak wér yaram ak réussite totale lañ leen di ñaanal yal na yàlla def jàmm. Sénégal yal na fi yàlla dolli xéwal yal nañu yàlla musal ci liy xew ci yeneen réew te di ñaan mu jóg ci réew yooyu mooy xeex yeeg coono yi ñu teg yenn doomu aadama ak yooyu yépp tey wax nag te am benn message bu may sànni mooy suñu njiit yi. dañ dimbali yenn sénégalais yi nekk Maroc gars yi ñu ngeen teg ay coono boo demee pour def visite ci yenn ruq yi boo fa duggee da ngay gis ñuy fitnaal ay doomu Sénégal te marocains yi fii kenn du leen ko def ñu ngi leen koy def di leen ko def ba ci ay frontières yi di leen fa fitnaal nañ gestu seen doomu réew yi nit amul lu doomu réewam message boobu lay sànni pour ak fu doomu Sénégal nekk. maanaam nañuy dawal deret ak deret ñu leen di nemmeeku parce que suñu ay doomu réew lañ loolu message la boo xam ne dama koy sànni pour ñu dimbali ñu ci sarax ñu ci bu baax a baax rek waaw uh-huh.